ak seen sant di leen jaajëfal lu bare bare di wax rek mbégte ak bànneex la ñuy am rek daal di fi dellu si waat daal di fas yéene rek ànd ak yéen si seen émission seetu bi ni ñu baaxoo woon di ko defee mardi bu jot ñetti doomu pendanaar yi ñooy ànd ak yéen di nuyu kilifa diine kilifa aada fu waay mënta nekk rek ñu ngi leen di sargal di leen ñaanal comme ni ngeen ñuy ñaanalee di ñaanal Sénégal waaye nag naqar ak bànneex ñoo ànd te gis nañu fan yi Sénégal lu mu jot a dund lu méttee métti mooy ci manifestation ñi nga xamante ne dañoo ñàkkoon seen bakkan koy jaale di jaale seen i famille di leen massawu di wax rek yàlla suñu borom yal na leen yàlla xare ajjana yi gën a kawe daal di leen rek ñu rëccu li nga xamante ne moom lañ doon yàggee ci àdduna waaye nag naqar bi ñu am barki démb bu mu nekk naqar boo xam ne àdduna ñëpp ñoo ko bokk parce que bu ñu ne Thione Seck du Thione Seck Sénégal kese mais c'est dans le monde entier ñëpp xam ki nga xamante ne euh, kooku di euh, Thione Seck Papa Thione ñëpp ni ñu baaxee woon di ko waxee moom it ñu ngi koy jaale famille ñëpp ñëpp ñu ngi koy ñaan yàlla yal na ko suuf ci kawam leeralal bàmmeelam yal na réccu li nga xamante ne rek nekkee woon na yàggoon na fii ci àdduna kon nag damay ànd ak moom saa su ne kooku di dërëm suñu beneen doomu pendanaar bi yaram bee xaw a sutante kooku di ma doo dërëm nag ñu namoon ko lool lool lool lool dërëm maa ngi lay ziar. maa ngi lay noo def mbaa yaa ngi tane. maa ngi bu baax a baax bu baax a baax mais namoon nañ la de. lay maa leen raw ah, suñu plateau bi xawoon na tooy tuuti rek. xawoon na tuuti yolof non dafa tooyoon sax. <laughs> dañuy delloo buum gi rek ci mboy mboy gi. Uh-huh. yi ñi ma fi bàyyi madoo jàngal naa ko ba mu mokkee waroon na mën a leçon yi mokkul ah mokkul mm, mm. comme dinaa dóoraat yeneen ABC ndax mu gën a dugg na xam naa ne madoo moom sela ngi woon waaw la ga moom soodu dëgg la waroon na a xumb ah xumbul woon de mi ñoom ñëpp wax nañu ko ñu ne moo ñu manqué moo tax suñu yaram yi firiwuñu waaye jeex na tey ndax euh, wax dëgg yàlla àdduna noonu la luy mm-hmm. tooy day wow euh, te tubaarkàlla macha allah bu ñu sañoon chaque jour rek sa mardi duñ ko raté benn yoon dañuy ñëw ku bégal askan wi bégal mm-hmm. Sénégal yëpp mardi duñ ko raté benn yoon dañuy di wax ne nag euh, di la nuyu am mbégte jàkkaarloo waat ak yow rek ni ma ko daan defee chaque mardi di nuyu kilifa diine kilifa aada rawatina mhm. suñu kilifay kër di wax ne fi nga daanelee rek foofu laay jël di jaale Sénégal gépp ki nga xamante ni euh, perte nationale la muy Thione Seck di suñu papa di suñu fans di lépp di ko jaale Sénégal gépp di wax ni rawatina fans yi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah fan yi ku leen xool même buñ deeree sax dinañ xam ni mhm. xol yi neexul ku ci mel ni Nabou Diagne Balago Nabou Diagne dafa bëgg Thione Seck ba yemale ko dara dara dara mm-hmm. na bu Diagne maa ngi koy jaale di jaale Esther Ndiaye ak euh, Aba mi ci kër gi bu ñu limee sax du ñu matle ndax xale yi ko bëgg def ko bàyyoo ko dafa bari mm-hmm. jaale Waly sekk ak ñoom Rouba Sey ma mm-hmm. kenn képp koo xamante ne rek Assane Ndiaye ma euh, waaw famille bi ñoom Assane Ndiaye ma penda ak euh, Kéba Seck bàyyiwuñu kenn bu ñoom ñëpp rek ñu ngi leen koy jaal di ko jaal Sénégal yëpp di ko jaal Abi Ndour mi nga xamante ni moom it kenn la si moom di ko jaal ki nga xamante ni mooy Papa Youssou Ndour di ko jaal Sénégal gépp ndax li ma wax rek boo limee doo matal ñu ngi koy jaal Sénégal gépp di nuyu ñëpp di am mbégte nag kontaan rek jàkkaarloog yéen comme ni ñu mm-hmm. koy defee euh, mardi bu nekk rek euh, di nuyu ñi ci prison yi tamit ñoom it ci am nañ ci wàll ak ñi nga xamante ne fi mu ne nii ñu ngi ci lalu hôpitaux yi ñu ngi leen di seet ku ci mel ni Mado moom day ñëwaat waaxu rek ñu péerloo mm-hmm. bu ko defee leçon yi gën a mokk xanaa xam bëgg nga non de la ibbee besel baas. <laughs> jërëjëf kon nag hommage ak kooku nga xamante ne rek moom mooy euh, Papa Thione Papa nag moom la ñuy def hommage tey euh, di ko rendre hommage comme ni ko ñëpp defee rek dañuy jéem nag munuñu waaye nag euh, dañ koy daal di ànd ak moom ba muy am nag ñaar fukki at woy boobu nga xamante ne woy na ko. dañuy daal di ñëw ànd ak Mia rek mu daal di ñu koy tegal téléspectateurs yi daal di koy seetaan. waaw lii nag mu nekkoon télévariété foofu nga xamante ne rek mooy kër gu mag bu ñu ne kër gu mag nag moom mooy RTS. gis ngeen ko euh, ci woyam boobu nga xamante ne yàgg na lool yàgg na yàggul euh, waaye nag euh, ñu ngi koy jaale ñëpp ñëpp ñëpp bu ñu limee rek dañuy daal di jum waaye man bu ñu nee coon sama xel dafay daal di dem ci Aïda Patra parce que ku xam Aïda Patra mhm. xamee ko ak kooku nga xamante ne moom mooy Thione Seck mooy période yi nga xamante ne Aïda Patra mu ngi koy animé Soxna FM ma nekkoon ak Aïda Patra foofu mhm. et ñi nga xamante ne tamit moo nekkoon auditeur u bàllaago yi ñoom ñëpp dañ doon dugg moom jege woon coon torop torop torop torop da Patra ku baax ah, ku baax a baax lii Aïda Patra moo doon fayeeku weer escaf mhm. mu wàcc ñi mu fekk ñëpp distribuer salaire am ñibbi. wallaay xam naa baaxam ndax euh, am na lu ñu jëflante. muy noonu mu def ngi la wax ne dundal yow it sa dund am na solo ci ñi nga xamante ni sama genre gi ndaw ndawaan gi jàng animation di ci conseil yeeg lépp. Mhm. ay dapatara ñu ngi lay jaale a baax. moom it waaw dafa jege woon coon euh, sek torop sax ñu ngi koy jaale. voilà ñoom day fay ñoom caba dramé. parce que siste caba voilà siste fa ah, moo ngi noonu jeex na tàkk parce que des fois doon daf ñu doon doon woo Papa Thion euh, a euh, waaye bese nan nga def ba ba dégg làkk yëpp ah donc tout le temps mun a ma di la conseiller nekk nit koo xam ne dafa njaboote woon ñëpp daal euh, ci ne ñu nekk surtout ci wàllu média bi koo daje rek mu njëkk laa posé question reetaan bi mm-hmm. comme ni ko ñëpp waxee rek dañ koy waa dañ koy ñaanal yàlla rek xoolee kii yam yi ñuy teg yëpp di nga xam ni ku kafkat la woon te dafa safoon xorom ndeysaan mm-hmm. yàlla bamba mi nga xamante ni moom la doon woy yàlla ko teeru amiin amiin yàlla dugal ko macha allah bis bi wane na lépp ndax euh, Sénégal ah. gépp génn mu naqari ñëpp mm-hmm. comme yàlla na fi mu ko fii mu jóge mu nekk loo xam ne nii franchement euh, lu lu lu am solo la parce que ku ko dégg peut-être bett na la waaye nag ah, de noonu la de mm-hmm. yàlla moom buy ñëw du tàggoo bu lay indi tamit booy ganee si àdduna tamit du la tàggoo mm-hmm. kon moo tax lu ñuy wax saa su ne rek nit ku nekk da ngay waajal sa bopp neexut dégg nag neexut dégg pour ñu naan la waajalal sa bopp ah. neexut dégg de waaye lu dul jaas tamit <laughs> xam nga xam nga buñ lay naan buñ lay naan waajalal sa bopp war nga sóoraale bés bi bañ la bett daal pour mu bañ la bett mm-hmm. mais est-ce que est-ce am na dëj bu dul bett borom tamit waaw parce que nee ku dee bàyyi mébét mm-hmm. képp ku dee rek bàyyi nga mébét boo xamante ni yaa ngi ko doon waaja def day bettaate waaye lu dul jaas la comme nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam nga doomu aadama bi da ngay xëy di programmer yàlla di teg programme am kese hmm? Hmm. moo tax euh, nit ku nekk daal euh, war nañu sóoraale kenn xamul kañ la lan la mm-hmm. waaye dañuy ñaan yàlla rek yal nañ yàlla mooy gudd fan ba tamit ba bés bu ñuy yàlla di jël tamit na fekk ñuy def lu ko neex yaakaar waaw ci ci julli fekk ñu tamit ñuy def lu baax loolu rek moom moo am solo moo tax nag yaakaar na lii tamit leçon la mm-hmm. leçon leçon la ba pare moom ay woyam yëpp da doon yeete ah yeete boo xam ne nii loolu dalay permettre boo ko doon déglu da ngay jàng Thione Seck boo ko doon déglu dafay am lu bëri loo xam ne dañ ci doon jàng dërëm tey mu fi ndax euh, nee nañu woy bu diglewul yeetewul ay nax la mm-hmm. te ku déglu li nga xamante ni moom la fi bàyyi njëriñ rek nga ciy jële mm-hmm. jàngat nga ciy jële ndax lépp lu mu mës a woy boo ko toppee gis ci njëriñ te loolu la woy di jëriñ kon loolu la ñuy def rekk ñu daal di dem seetaan beneen kilibam boo xam ne ni da ci wax na wax ju am solo mooy julli te ne bu nit boo nee jullit nga mm. dangaa war a julli te nee nañu julli ah fële bu ñu fa demee bu julli bi baaxul mm. mooy loolu loolu la <laughs> wax nag kon nañ dem seetaan Papa Thione euh, ci julli ngeen euh, Thione Seck ci clip boobu ñu ciy gis nag ndem si yàlla si kooku di mari Ndiaye Gawlo di wax rek adduna du dara adduna nettali kese la euh, kon nag moo tax def ndànk rek euh, wax ndànk jëfante lu baax yaakaar naa ne du am solo la kon nag ñu ngi koy jaalewaat Sénégal ñëpp waaye di ko jaale jaalewaat àdduna bi fu waay munta nekk rek ñu ngi lay jaale Thione Seck parce que même bu fekkee benn fan mus ngaa déglu woyam mu neex la wala nga toog ay ati at at bu nekk mu génnee album nga gis ci sa bopp nga daal di euh, daal di kontaan daal di bég euh, am na ñoo xam ne tey bu ñu déglu woon Thione Seck dañuy dam am mbégte waaye bu ñu ko déglu woon tamit amaana bu ñu déggee paroles yi bu ñu defoo bu ñu buggoon def naka sudul noonu dañuy daal di mën a soppeeku daal di def la nga xamante ne rek moom moo nekk yoon bu baax bi dërëm wallaay dëgg la Bassel def nga lu rafet ndax euh, la kii bi jàll ku ko xool sa yaram day daw mm-hmm. ndax boo gisee Ndeye Mari Ndiaye ci wet gi gis ko da ngay xam ne lépp rek fii lañ koy bàyyi di ko jaar ku mel ni ku Kouthia. Mhm. ndax euh, tubaarkàlla macha allah sama patron bu baax boobu moo fi nekk di ma reetaan loo noonu waaye ndeysaan loolu ak àdduna ànd. nee na nañu bàyyeeku triste bi lay bañ daal moo tax mu nekk foofu di di ñu reetaan. waaw xam nga xam kenn du moom. xam nga xam nga xam nga sax da ngay da ngay faral ngay dégg dañuy faral di dégg ñu naan euh, nit ki moom bu génnee àdduna euh, rango ñi moom soxlawu ko ñaanal ko rek nga soxla ndax ne même boo jooyee du tax mu ñëw mais des fois nag aussi nit rek la mën a doon xol moom xol rek la kenn mënu koo bës bañ koy bës voilà moo ngi noonu waaye nag euh, yàlla moom moo ñu sàkk moo ñu moom ba mu ñuy indi tàgguwuñu bu mu ñuy jël du ñu tàggoo nee na dund leen ba ngeen foog ne doo leen dee mhm. waaye tamit dund leen ba ngeen foog ne léegi léegi léegi tey tey tey ngeen di dee kon àdduna nag ak loolu moom moo ànd euh, dañuy dañuy dañ koy jaajëfal di ko ñaanal parce que ñaan moom la gën a soxla euh, yàlla taxawu njabootam sàmm leen nag yàlla na ko yàlla sàmmal njabootam li nga fi bàyyi nag yàlla nañ tegu ci yoonu siraatal mustaqima comme coon ni mu nekkee woon di yaree ay doomam julli lu am solo la de sama genre gi ak sa genre gi man sama genre gi sax moom moom doy na waar daal ñun ñi nga xam ne moom ñu ngi noonu daal euh. yàlla rek moo xam te xam naa ne sa genre gi daal la ñaan comme que di ngeen di julli di ko bu ngeen jullee rek dee lañu gëstu duñu ñaanaleel bu ko defee rek ñu ne suñu xel yi dellu si am na ku nekk si ligne bi rek ne ko allo jël allo allo asalaamaaleykum ah, maaleykum salaam sëñ bi na ngeen def waay ñoo ngi fi ah man de dama bëggoon a wax ci njaal ay ca toppeelu diggante maag coon wallaay dëgg la ñaanal adduna bi ñaanal te euh, tamit jërëjëf ñu ngi lay déglu ayca allo waaw ñu ngi lay déglu. waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mhm. yal na ko yàlla yërëm. amiin amiin. yal na suuf sedd a kawam. amiin amiin yaa rabbi. yal na tee di noflaayam. amiin amiin amiin. dugg na ko gënal fu mu génn. amiin allahumma amiin. ñu ngi koy ñaanal Sénégal yëpp nag ñu koy ñaanal international waaye yéen ñu leen koy ñaanal. Ah, man de dafa am témoignage ba xam ne ne. moom rek laa bëggoon a wax. Mhm. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu mhm. ndax dafa am action ba nga xam ne moom euh, defoon naa ko amoon naa ko moom ñaanoon ko ci yàlla it. Mhm. ci kasetam quatre vingt cinq jëm quatre vingt six. boobu dama daal tukki di dem euh, bitim réew ba may dem nag man kasetam rek laa daal déglu di ko jënd benn jour nag may dem le le laa fi jógee àgg Rome le vingt. 86. Mhm. Mhm. ma am kaset ba ma jëndoon nag ki moom na ko de bii kaset day ñaan naa yàlla bu lu moo yàqu. Mhm. yàlla na fekk ma ñëwaat. ba ma demee ba ñëwaat boobu aéroport bi yoof la. douanier yi di contrôle sama bagage ni ubbil ma ubbi far waa ji kaset bi daanu toj. rulle bi daw. Euh, kii euh, douanier bi ci moom taxaw na ah siñ bi maa ngi jégalu de baal ma ne de lii laa ñaanoon yàlla. donc yàqoon na fii ci aéroport bi maa ñëwaat lii laa ñaanoon yàlla. dëgg la. sama sama woykat la woon. Mm-hmm. ba may nekk xellee. Mm-hmm. ba ni mu toll mosuma jënd beneen kaset bu dul Youssou yëpp ne Abou Ndour Thione Youssou Baaba Maal ak yëpp ma koy jënd nag. dañu mm-hmm. ma koy may. waaye moom moom bi mu nekk Ridis ba ni mu fii euh, bi ma ko gëj a gis ñetti weer la giseenuñ ma ne ko gëraa ma ne ma ne jërëjëf yàlla ko baax lépp léppay baax mu ne jërëjëf booy dëgg la waaye te témoignage daal ndax mu ngi tey ci kër ak dëgg ga lépp la ma wax lu du dëgg maa ngi tooñ sama bopp dëgg la la wallaay la nit dëgg la nit ak julli la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. te képp li muy wéy boo ko dégloo ci àll bi boo tukkee boo déglu li muy wéy boobu lay gën a neex ndax dalay gën a jox jom moo tax ma tey ma woote it bokk cee wax ñaanal ko na mhm. ko àdduna bi ñaanal di ko di ko ñaanale di njabootam li mu mu bari mu néew amiin yàlla teg loxo amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi yàlla doomam yëpp am na mën nañ ko muñee am nañ ko muñee amiin amiin amiin muy waali nag ak keneen ak keneen yëpp yàlla na yàlla mm-hmm. Seydina ñoom mm-hmm. Mm-hmm. ñaanal ñëpp ñu ngi koy ñëpp a ko bokk kon yàlla yàlla nangu ñaan yëpp. amiin amiin amiin leeral fa meelaw ci barke Sidina. amiin allahumma amiin amiin yaa rabbi. jërëjëf ngeen baal ma amiin ah, yow tamit yal na la yàlla bindal yiw parce que àdduna lii rek la moromu jullit ak moromu jullitam comme ni mu waxee rek yàgg na di ko bégal ak ni ñu dëkkeek yëpp ak li fi wax mhm. ah, loolu lay wone rek ah, àdduna dërëm amul solo de amul hmm? dama naan sax oto yu yi kër yu rafet yi est-ce que jar na ko mhm. ah jënd jamaa yeeg jënd oor yeeg ah est-ce que est-ce en fait euh, xaw ma euh, xaw aussi comme boo xoolee tamit yàlla defarul ko xar yi ak malayen doomu mm-hmm. aadama yi tamit la ko defaral kër yu rafet ak oto yi donc mm-hmm. yaakaar naa ne loolu yëpp dafa bokk ci suñu dund mm-hmm. waaye tamit même boo ko amee yaakaar naa ne war ngaa mën a wàcce sa bopp peeru wàccee ba nga xamante ne nga xool bés boo bés boo génnee àdduna kenn dootu la tëralaat sa lal bi de sa duubul lii bi sa kin xaaw si kenn du la waaw laajte ko ci suuf waa waaw ci wanag bi lañ lay dem ber wala ñu yóbbu la ca morgue ba yàlla na yéex waaye li nga wax rek àdduna du dara ku ko jàpp yaa ko jàpp jàpp kenn ku def lu baax rek moo fa am solo li sa papa daan wax marchandise moo fi jaay bu dul baax bénéfice ba perte la comme na nañu baax di def lu baax te dimbalante ci jullit dimbalante ak lu am solo la ndax bis boo dëddoo lu rafet li nga fi doon def rek la ñuy wax bis boo dëddoo lu rafet rek la ñuy wax comme nañu yokk def lu rafet li yokku def lu baax li yéenante jàmm ndax jàmm rek mu ci la am solo jàmm rek am solo moo tax dañuy dem seetaanaat beneen kilibam boo xam ne ne 1985 la ko defoon euh, mu defee ko woon TF1 kooku ak mu ànd ceeg rakkam mhm. euh, kooku di euh, Mapenda Seck moom rek la ñuy dem seetaan tamit waaw Mapenda Seck aussi ñu ngi koy jaar parce que xam naa ne xam nga mag boo xam ne dala féete woon ci baay dafa am solo nañ dem seetaan kilib bi daal di dellu si waat Sek Sek, le leader, Boulema Fire. Ce qui signifie ne soyez pas jaloux, à mon égard ou encore ne m'enviez pas trop, car on le sait, ils sont tous les deux griots, et très souvent, eh bien, les griots courtisent du regard. a fait, il faut dire qu'il y a deux autres cassettes qui sont sorties depuis. La toute dernière s'appelle Aida Souke. la musique sénégalaise sur tf et Radio 7, une musique sénégalaise déjà bien enclenchée puisque nous connaissons en tout cas les Tourekunda, le groupe Ralam et d'autres groupes arrivent encore euh, derrière eux puisqu'au Sénégal il y a une véritable pépinière d'artistes et prochainement dès le mois de mars, ce mois de mars, eh il y aura la visite de Youssou et du Super Diamono. Ne quittez pas l'écoute, dans un instant le Super Diamono aussi. Money

gis nga ko moom mag rakkam ji kooku ma penn sekk mu nekk euh, rétro daal dafa neex de dërëm wallaay macha allah ah? te xam nga dellu démb dafa baax te boo xoolee lii rek nga xam ne nit ku baaxoon la ku uufoon ay rakkam uuf doomi ndeyam uuf doomi baayam ndax euh, mën métier jël say rakk di leen ci di leen ci uuf teg leen ci yoon wu baax yombut te la won na réew mépp que ni nit da ngay bëgg sa mbokk mm-hmm. uuf say doomi ndey uuf say rak uuf say ñëpp mm-hmm. te boo xoolee clip bi rek xam ne moom ma penda tubaarkàlla allah uh, woy wa daanu na ndax uh, bu leen ma fiire yaay saay saayu ma damay bandaan ma penda sek ci lii la ko jëlaat daal di koy tëggaat lu mu ñu woy rek téere la te mm-hmm. boo dégloo dégg boo bëggee gis-gis ndax tubaarkàlla daal uh, koo xamante ne monument la woon bibliothèque la daanu na mais nag œuvre yaa ngi waaw moo ngi noonu nag moo tax li ñuy wax rek Wally am na yéen bu diis. Euh, boo xam ne ni waaye dañuy ñaan yàlla rek yal na ko yàlla yoon euh, oyofal yéen bi. Euh, parce que nag taxawu place coon. Mm. dana yomb du yomb. Mm-hmm. waaw parce que bu xoolee tey bàppam li mu fi jot a def ak li mu fu wëy ak wëyi ak kiiwam. Mm-hmm. ah macha allah mais dañ koy ñaanal yàlla mm, suñu borom rek yal na yéen bi oyof parce que yàlla du teg jamais jaamam lu mu àttanul. Mm-hmm. lu mu teg jaamam rek dafa fekk mu natt jaam bi ba xam ne jaam bi àttan na loolu mu soog la koy teg ba tax na rek dañuy daal di dem Ouza di Mansa daal di nuy rek waa Casamance waaye la reine des reines du bois mm-hmm. sacré maa ngi koy sargal di ko jaajëfal lu mm-hmm. bare bare bare di ko wax rek jërëjëf jërëjëf boo xam ne nii mm-hmm. am na fu mu tàmbali waaye amul fin kon nag la reine de reines bois sacré ñu ngi koy <laughs> ñu am na ku nekk si ligne bi ne ko allo nit koy jël bi allo <coughs> allo. salaamaaleykum sang bi. waaw na ngeen def. ñoom si noo tudd ak foo ñuy woowee. voilà maa ngi woote depuis Diourbel fii. depuis. waaw allo. Koungheul. waaleykum salaam. est-ce que doo wàññi doo waa doo wàññi télé bi ba tuuti rek ñu mun a déggante. ma allo yaa ngi dégg ah? allo waa nga ni. maa ngi woote fii Diourbel quoi bëggoon nga fa deux mois ci coom cinq. ayca ñu ngi lay déglu. donc man dama nekkoon sant boo xam ne dafa dëgg yàlla on va sant jàkkaarloog moom mais plus de quarante quelque temps fu mu nekk mu àdduna. dëgg fu ma nekk ci àdduna su ma mën naqar moom lay déglu. Mhm. su ma amee bànneex moom lay déglu tey. Mhm. diggante démb ak tey ba mu dee ba tey wala dafa mel ni ku ma bokkal ndey ak bàyyi moo faatu li may wax wër nañu bëri bi tey di ma xam. dëgg la aventurier première mille neuf cent quatre-vingt-dix ba tey maa ngi diggante France Sénégal mhm. Espagne bi mais Thione Seck moo nekkoon sama lépp ma am na ñu bëri tey wallaay léegi si Thione nag na waaye ba tey mhm. ba tey yàlla na ko yàlla yërëm bu yàgg a bëggal Sénégal amiin amiin yàlla yàlla na ko yàlla yërëm barke amiin amiin amiin allahumma amiin moom mi gën a xam ci tout Modou Pouye mhm. ku dégg baat doo xam ne c'est vrai waa ji waaye am na boo xam ne àdduna bépp am xam ne dafa mën ñoo bokk ndey bàyyi moom dama ko tëg bët bind d'accord ñu sama waay la yal na ci yàlla kontaan naa ko yéen quoi. jërëjëf kon nag ñëpp benn kaddu bi la dërëm ñëpp hmm, benn wax bi la ñuy wax euh, mooy li ma wax rek euh, da ngay déglu Thione Seck artistes yi kenn mënu leen delloo euh, njukkal parce que parce que nit boo xam ne des fois da fekk ci ay situation nga déglu hmm, woy hmm. woy bi am fu sori fu lay yóbbu am na ñoo xam ne bu ñu dégloo woy sax am du ñu joppoon yëpp dañ koy daal di bàyyi donc loolu mu nekk comme li ñuy wax Euh, souvent rek euh, li Ndiaga Mbaye waxoon rek euh, woy bu diglewul yeetewul. ay nax la ay nax la amatul njëriñ. waaw te ñoom li ñu woy yëpp. Mhm. nit ñi war nañ coo mën a jëriñu yaakaar naa ne ku jëlaat rétro yi. Mhm. depuis con bi mu commencé di woy ba yoonu yàlla tey ak li mhm. mujjee def. ak ndeysanam projet yi nga xamante ne aussi amoon nañ ko dégg nañ Ismaïla Lo li nga xamante ne wax na ko ak ñeneen ak ñeneen franchement mu jëloon tamit nag waa Casamance si ñoom tamit pour ñu ànd ak moom woy ko ci benn albumam. franchement euh, doy doy doy na waar daal doy na waar doy na waar. mais euh, waale mi mu fi bàyyi dina ci teg loxoom. Mhm. loolu lañ koy ñaan projet yi papaam yoroon yëpp moom mu teg ci loxoom yàlla jàppale ko dooleel ko mu mën koo yeggali ndax euh, tubaarkàlla macha allah moom it mu mujjewul puso bi mu réer. Mhm. ndax mi ngi bay waaram xanaa dooleel ko te ñaanal ko yen bi oyof ci kawam. di jaale laminaar magam sama chéri la sama lépp la mhm. laminaar borom Espagne maa ngi koy jaale di jaar Rouba Sey doomu ndeyam di jaar Mapenda mm-hmm. di jaar képp koo xamante ne am na benn fansam boo xamante ne da ko bëgg Nabou Diagne mm-hmm. maa ngi koy jaale bu baax a baax bëgg papa coon ba papa la koy woowee mm-hmm. comme ñooñu tey ñoom ñun ñu am am nañ naqar mais ñi tam kenn ëpp ñu naqar ndax suñu papa la suñu lépp la ci luy doxal suñu ci la bokk ndax bu woyul woon neex duñ ko mën a teg a yàggaay ba kenn mën ñoo xam yàlla na ko yàlla suuf oyof ci kawam yàlla leeral bàmmeelam musal ko ci cat yàlla teeru ko sa àjjanay fi daw amiin allahumma amiin ku ci mel ni Aysatu Sall madame Ngom foofu mhm. ci Richard Toll maa ko koy jaale bu baax a baax a baax mhm. ak ki nga xamante ni mooy Adama Wilane mhm. borom Parcelles Assainies doomi ndey euh, kenn bëggul ñooñu ay fan sa Thione Seck lañ moo tax ma tànn leen tey ndax tey sa du bisu dédicace mais ñooñu dañoo bëgg Thione Seck ba mu jeex moo tax kon am na ku nekk si ligne bi rek dañ koy wax allo allo allo allo waa allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam euh, soxna si na nga def maa ngi fi euh, foo ñuy woowee ak noo tudd maa ngi tudd Marème dëgg dëkk Damel. waa kay Marème ñu ngi lay déglu. waaw dama bëggoon dugg ci kii bi rek. Euh, hommage à Thione bi waaw. wax dëgg fa yàlla. Mhm. mu mett ñu lool nga bëgg ko lool Thione nekk suñu fan ñu koy ñaanal yàlla ndax. dëgg mhm. yàlla. Mhm. def na référence la ci réew mi. dëgg la. référence la ci réew mi. ba nga xam ne. wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp yeete la. waaw ñu kontaan lool nag ci Wally Seck lu mu taxawee baayam li nga wax ne sànq yan bi diis na. Mhm. waaw Wally Seck dañ koy ñaan yàlla rek yal na yan bi oyof. ci boppam ndax kontaan nañ lool ci Wally Seck yàlla waaye nag. Mhm. ndax li olof naan euh, euh, wallaahi. Mhm. xol bee fees. da nga koy ñaanal rek. Euh, waaw nañ ko ñaanal parce que yàlla moom kenn mënul xëccoo ak moom. kenn mënul xëccoo ak moom. Euh, moo ñu sàkk moo ñu moom ay jaamam kese lañu ñu suñu bopp xamaluñu suñu bopp amul dara lu ñu mën a defaral suñu bopp. waaw moom daal moo ñu sàkk moo ñu moom lu ko neex lay def ci ñun. Euh, kenn mënu ci kenn kenn mënu ci dara waaw. seede yi rafet na. te jullit lool rek lañ ciy rafet njort. ndax li ñuy boobu dañ lay seedeel nee nañ seede yu rafet yi ñu koy seedeel ah wax dëgg yàlla lu ñaanal ko yàlla rek cat bañ ko jiitu ci bàmmeelam. te yaakar naa ne ku déglu discours yi mu jot a def yëpp. tout le temps da ngay xam ne kii mu ngi doon waajal boppam. parce que nee na lépp lu ma dund rek. Mm-hmm. bénéfice la ndaxte yeneen bi. dundul loolu la mu dund moom te kooku moo gën di mbindeef ah xam nga tey bu fekkoon leneen la yàlla mënoon na ko fi bàyyi yàlla nee na kooku laa gën a bëgg ci doomu aadama lu ma bind ah, ah, xoolal moom it at yi mu dund xoolal moom méttit yi nga xamante ne suñu yonent bi dund na ko hmm? teel a ñàkk say waajur yow kese nga teel a génn tamit àdduna donc euh, loolu nekk loo xam ne nii waa dara dara dara boo ko xoolee foofu rek euh, dëgg la doomu aadama doomu aadama dafa gaaw fàtte ndax euh, tubaarkàlla macha allah am euh, waale sa baayam gunge na ko ba mu mën a xàmmee ràññee am ñoo xam ne 5 ans am ñoo xam ni buñ nee ngeew euh, lépp a ngi fi daal àdduna ba ne pare dërëm dërëm ku nekk mm-hmm. bu la yàlla mayee gudd fan. Mm-hmm. ba nga dund ak say waajur. Mm-hmm. dund ak sa pap dund ak sa yaay ba nga liggéey hmm. ba ngay defaral sa yaay di defaral sa papa di hmm. leen jox teraangal kooku war naa sant sant yoo xam ne parce que am na tey ñoo xam ne dañu judd rek seen yaay yi gaañu ñii janu judd seen papa yi hmm. gaañu ñii jotuñu gis seen jotu ñu gis seen yaay xoolal ñi nga xamante ne dañu nekk ci euh, ci crèche yi Ah, ñi nga xamante ne dañ leen a jur sànni leen xamuñu ñan mooy seen waajur dañuy màggaale noonu duñu xam sax eh, ki nga xamante ne mooy seen waajur bu jigéen wala seen waajur bu góor kon nit bu la yàlla maye rek nga daal di dund ak say waajur mm-hmm. yaakaar naa ne loolu jar naa daw ba dee teg la ci yoon wu baax yoon wu baax yar na ci diinay lislaam am am waaw bénéfice la de am na ku nekk si ligne bi allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam sëy bi noo def soxna ñu ngi lay ziar waay. ñu ngi lay nangoo ziar bi. ah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. jërëjëf ñuy siggi sa wàll yow tamit. ah Thione Seck de moom dafa nekkan koo xamante ni moom. Mm-hmm. ñun dañ koo musa bëgg suñu xol moom. dëgg la. suñ amoon lu lu ñu métti sax. Mm-hmm. day jël kasa dem di ko diglu. ndeysaan. Mm-hmm. mu mu nekkan koo xamante ni daal. ku sori woon la ci ñun. mbëggeel gi mu ko mbëgg bëgg nag. Mhm. mënuñu laa wax ne la fii fii la tàmbalee fii la yamee. Mhm. dëgg la. xam naa ni Waly Seck Thione Seck moo ko jur. Mhm. wallaay dëgg la. mais wallahi taalaahi yaakaar naan man mii sax maa ko gën a bëgg Thione Seck. Oh. dëgg la dafa yam. ndax ndax nag Thione Seck. woyam. dafa nekk woy yoo xamante ni. ndeysaan. maanaam dafa ànd ak jamono. dëgg la. dina woy tey. dina woy ëllëg. wallaay mhm. dëgg la. Mhm. waaw maanaam ko monument la. dëgg la futur présent lay woy. waaw mhm. moo moo taxit ñàkk gi ñu ko ñàkk nag. nekk na loo xamante ni lu rëy la ci Sénégal. dëgg la. waaw parce que un maître dem na. waaw nit ku baax dem na. nit ku yiw dem na nit ku lislaame dem na. nit ku bëgg réewam dem na. moo tax ñu leen koy jaal yéen ñëpp. wallaay jërëjëf delloo jaar. soxna sama xol moo fees. wallaay rawal. Mm-hmm. ndax mbëggeel gu ma ko bëgg. dëgg la. man maa ngi woote Tiwaawan. Tiwaawan. waaw maa ngi tudd Modou Khoule ku ma xam di nga ma xam ne Thione Seck la. dëgg la bi bi gaañoo na ma woo ne ma sigil ndigaale. dëgg la wallaay noonu ndax ndax bëgg ma ko bëgg. Mm-hmm. ndeysaan. maa ngi seede ci wallaahi azim. di nga vey bi mu gaañoo. Mm-hmm. dama toog bi jaay ma ne damaa gëj a ma dugg YouTube. toog di toog diglu ko muy ci ku mhm. asamaan set ñu tàgg ñu tàggee ma ko. déggal li xoolal loolu. kaw ma ko woon sax sama diggante yàlla. ndeysaan. waaw vraiment daal sama xol. fees na daal. wallaay yàlla na yàlla. waaw waaw euh, donc moom tamit ñu ngi koy jaajëfal rek yàlla na la yàlla bindal yiw àdduna moom nii la sa moromu jullit moom bu génnee àdduna da nga koy da koy jaale rawatina koo xam ne dala yàgg di bégal. Ah? waaw en tout cas daal ku ko bëggoon ku ne lenn rek nga koy fayee mooy que saa yoo jullee nga di ko euh, ñaana parce que heure bi moom rek loolu moom moo ko desee loolu la soxla amul leneen lu mu soxla lu dul loolu euh, kon nañ leen ñaana rek ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu ñoom ñëpp yàlla xare leen ajjana yal nañu rëccu liñ doon liñ doon àdduna waaw dëgg la di wax ni waali bi mhm. binjoona waali binjoona waali binjoona ñu ngi la koy jaal ak waa binjoona yëpp bàyyuñu kenn mhm. faatu ngaan binjoona ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaar rawatina ren mhm. di ko nuyu ak le roi ak képp koo xamante ne yaa ngi binjoona rek maa ngi lay nuyu sama xarit yi mareetu ak sama doom yi nekk foofu ak sama goro sama xarit yi bari nañ foofu ñu may message Seck ba tuddee boppam Waly bi njoonal woyu Waly Seck yëpp lay reprendre di ko wax ni Waly yow tamit am nga loolu naqari ñu ngi la koy jaal kenn bëggul kebe mhm. maa ngi koy bégee bu baax a baax fii ci HLM xaritu Adama Wilane mhm. euh, borom PA intesis ñoom ñëpp maa ngi leen di jaal ki nga xamante ni mooy Papa Thion Besel euh, kon nag euh, noonu la ñuy def rek dañuy daal di dem seetaan benn kilibam boo xam ne ni xale mhm. neen naa leen Papa Thion lépp la woy moom ak ah. Youssou Ndour daal macha allah waaw macha allah donc nañ dem seetaan kilib bi daal di dellu si Thank you. naa nag woy bi ku ko rek mm. di nga ci gis sa bopp mm, nee na ba ngay xale dangaa war a jàng métier jàng métier lu am ah. <laughs> mosal ma ñamal ma ci loolu yàlla nañ ci yàlla mosal amiin ah, ndax li ñuy wax rek moo ñëwaat woy bu diglewul yeetewul ay ndax la te naxu ñu wax dëgg yàlla ndax gone gu ko déglu di nga xam ni gone moom jàngi métier rek a ko war mm-hmm. mel ni Xaadim Gay Faas Mbaaw ak Maymuna Gay ñoom di ja kenn du leen wax jàngi leen métier mm-hmm. ñu ngi leen di jaale Papa Thion ñoom Adama ak ñoom ñëpp ay fans lañ di leen jaale bu baax a baax di wax ne woy yi ah déglu ko nag am na solo waaye nag jëriñoo wax ja mu ëpp solo. waaw kon maa ngi ko koy jaare rek eh, sama mag ji kooku di Mami Balde moom moom dafa bëgg coon bëgg coon bëgg coon ba nga mm, xamante ne eh, buñ ko bëggoon bu ñu bëggoon dara si moom sax dañuy jékki-jékki rek benn woyu coon ñu teg ko nga gis na xoolal li nga bëgg ci moom mu yëkkati jox la ko ndax eh, bëgg bi muy bëgg coon 24 heures sur 24 kooku rek lay déglu kon Mami Balde aussi minen ñaafoma ran e coon se minen ñaagorma minen andi an kalaano du anoo bo yaa Allah yurme yaa fo mbo allah ɓuɓɓina leydi e dow muɗum minen gandi jikkigi kandanɗa jeeb par ce que moom dafa bëggoon ceeg euh, coon ba walla sax ñi nga xamante euh, ñoom ñoo ko waroon bëgg coon kon nag moom it ñu ko koy jaale c'est ma grande sœur mu ngi foofu ca Somone euh, di nuyu waale tamit sama turandoo ma koy furndu bëree bëree bëri Besel bu ndaw Besel Somone wala Besel Asegna Besel Paris mm-hmm. Besel Mauritanie Besel Tamba Besel Kolda macha allah ah Besel Besel aussi Dakar fii mm-hmm. voilà Besel nekk Dakar yaakaar aussi maa ngi leen di parce que damay bañ sama hmm? seex yi bu ñëwee besel mbaadu damay damay bañ a damay bañ a juum daal moo tax voilà ah. donc sama turandoo yëpp maa leen di nuyu euh, fàttewu ma ci kenn parce que ku nekk dafa fi nga dëkk mm-hmm. foofu nga daal di tuddee sa bopp besel somone wala bii besel ah. tubaab ku nekk besel métis waaw mu ngi noonu ku nekk daal judo ba besel maado besel jàmmalaay hmm. dina ah, ñëw Aïcha boobu kon nag dañuy daal di ziar tamit lu bëree bëree dégg nañu démb nag hmm. ki nga xamante ne rek mooy euh, suñu kilifa hmm. moom tamit mu am seede yu rafet yu mu wax ci ko nga xamante ne moom mooy consek euh, bi mu ko fekkee euh, mu demoon seeti ko mu wax consek nee na ko damaa gént bàyyi laay oh. te yaakaar naa ne loolu ñëpp dégg nañ ko ñuy sang boobu ñu ngi koy ziar lu bëree bëree bëree bëree donc di ziar laayeen ni démb gis nañ bi nga xamante rek euh, def nañ ko Covid bi nag moo tax waaye boo xoolee euh, nit ñi tamit ni ñu respecté mesure de barrière yi nit ñi takk seen i ah, euh, yaakaar naa ne nag lépp luñ fa ñaan rek yal na ko yàlla nangu parce que wax nañ fa wax yu am solo am solo yoo xam ne askan bi war nañ koo jëriñoo Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar la ma nekkoon di wax sànq rek ñun ñëpp benn deret bi la parce que boo xoolee Sénégal li ci gën a bari O plus bi ak A plus bi bari na fi maam da ngay dem a doxa doxa doxa dox ba nga ne ndekete kii ñoo bokk benn maam kon nag nañuy waxtaan rek mhm. nañuy waxtaan suñu biir waxtaan euh, waxtaan boo xam ne waxtaan buy dëggu lay doon mhm. tamit nit booy diggee da ngay diggee la nga xamante ne da koy mën nit warta diggee lu mu mënul bala ngaa digle sangaay olof di wax da nga njëkkee ko si sa bopp kon <laughs> am na am na ku nekk si ligne bi nañ ko ne allo aloo allo métier asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah dërëm ne ko allo. Euh. dalal ko allo. sang bi. ñu ngi lay nuyu. Ndiaye la Ndiaye la. Ndiaye Diakha Ndiaye ñu ngi lay dalal. ni ngeen def. ñoo ngi fi Ndiaye. Ndalaay. Euh, alhamdulilah ñu ngi lay dalal. ci hommage bi ñu defal euh, Papa Thiam. allo. allo waaye ñu ngi lay déglu. ma ne man moom bëri ma woote sax si. ci télé. waaye nag wax dëgg yàlla man moom mënuma bañ a woote. wooteel mm-hmm. waaw mais. nangul nañ la woote bi. ma ne ko yéen naa ba loolu moom maa ngi maa ngi gërëm Youssou Ndour. wallaay maa ngi gërëm Aby Ndour ak képp kuy liggéey TFM parce que depuis bi. Euh, di coon naa ko ba léegi man maa ngi suivre TFM. Mhm. donc man moom dama mel coon noo xamante ni képp ku bëgg coon sax bëgg naa la. ay yow ndeysaanam. képp ku bëgg coon bëgg naa la man ñi nga xam ne ñenn ñi sax am na ñoo xam ne xamuñu sama tur li ñu may woowee mooy coon. Mhm. waaw man nag yàlla dafa def euh, coon yàlla moom ma ko bëgg loolu. Mhm. daanaka ay woyam dama ko doon récité sax comme ni may récité. leçon leçon. waaw mais nag donc comme euh, comme rek ñu ko ñëpp waxee. li a naan ku ñëpp tif la nga ci tool tool moom dafa nekk li xam ne dafay jàngale. Mhm. waaw donc daanaka mën naa ne ñu si bari xamuñu ko parce que ndax xamuñu ay ay leer mooy lan moo tax xamuñu ko. li ma wax rek li naan xam naa may kan xam naa li may jar. ñii jëm nañu ma xam waaye ma xam. borom xob mooy te laa biir ñàkk ñaan dañ ko lay jëy mën naa la awoyal. donc ñu bari xamuñu kan mooy coon. wallaay dëgg ko gi waxee rek nan way bu diglewul terewul yeddewul yeetewul tuddul way naxaatal loolu coon na ko wax maa ngi ko wax mais coon moo ko wax ci way boobu sax la ko waxee. waaw dëgg la man de wax dëgg fa yàlla amul lenn lu ñu di wax man man ma la ci génn wóoy sonn amul. man mën naa ne wóoy lépp waaw man xam moom man ko ba sonn ñu may ma ba la njëgaan maanaam donc. Euh, ayca kon ñu ngi lay sigil ndigaale kon. Mm-hmm. nañ ko may ma sigil ndigaale lépp ayca ku la jàpp di nga ko njuuy. Mm-hmm. ayca ko la rek tekki woo dara sa ma kib naa la. wallaay wóoy boobu. Euh, li kii wax naan xaw ma kañ la xaw ma fan la xaw ma nan la. ko coono ma ne ko ñu may ma morceau boobu parce que morceau boo xam ne yi ma a neex. ndeysaan naan mbàjj ba daan sànq maa ko. Mm-hmm. ndax fu ma toll di jéem a sama waaja. bu mm-hmm. ma ci nekk xam nga la njigaan moom mos a sax <laughs> man mm-hmm. man dem naa ko ba jamonoy kaset. bu ma masaa nag jamono bi amoo rajo mais fu fu fu nga xam ne kenn dama naan topp jaay yi daan jaay kaset may déglu ak wayam ba loolu may jënd rajo. Mm-hmm. yàlla dafa def pré-RC coon laa bu ma tegee rajo bi. Mm-hmm. c'est laa ci njëkk a dama ne la saytu ma néeg dama ko defoon lépp ay kaset ay CD yàlla def def na nag donc dëgg la beneen laa ko mas a gis mais daal mel naa ci moom loo xamante ni dafa xëy a yéeme waaw donc euh, comme léegi de peut-être xëy na ñëpp dañ ci bëgg a dugg donc man man ko ma gàttal en tout cas dëgg la ba lépp lu bokk ci yoon dama ko képp ku bëgg coon sax ma dëgg daal oh, macha allah loolu foor na dama ko bëgg mhm. ma gis mu doxale daanaka ma yokk koo bëgg waaw maa ngi gërëm di sant jërëjëf ah, jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ci ñoom euh, donc lii mooy adduna lii mooy Sénégal Sénégal dafa neex xoolal lii rek ñi koy jaale sax ñoom ñoo ñàkk parce que fi ne nii yaay maam Ndeye Soxna Ndour moo ñàkk doomam mhm. moom lañ koy jaal ak famille mhm. Ndoureen yëpp ndax euh, la li ñu war a def rek la ñu def ndax coon benn famille bi la mhm. benn bopp bi la ñoom lañuy jaale di jaale buuba di jaale njaga di jaale ñoom ñëpp xam nga xam nga xam nga Abi Ndour digganteem coon Seck histoire bu rëy moom na xam nit ñi am nañu seetlu boobu mhm. euh, dañu doon faral di dégg ci nit ñi xamuñu nag lan moo ciy dëgg ak lu dul dëgg mhm. euh, diggante coon ak Youssou nduur mais Aby Ndour tout le temps tànk que xoolal tànk bi mu ci dox xam nga bëggu ko wone ko mais non nañu wax xam nga nit ku nekk tamit mm-hmm. da ngay am sa mag mooy dëggu abinduur mm-hmm. loolu mooy wane ne nit ki triché wul mm-hmm. dafa dëggu dafa la dafa woon carrément man dama bëgg coon seeg te fu mu toog da koo waxee euh, wonewu ko euh, donc loolu loolu mu nekk lu lu lu am solo parce que tey nit sax mën nga bëgg nit nga am frère buy woy xëy na doo am sañ-sañ bi wala euh, mun koo manifester mun ko waaye tamit coon delloo ko tamit njukkal ba nga xamante ne woy ko woy bu xam ne ne clip bi niñ ko tourné sax d'abord d'abord moom moo njëkk a rafet moom it mu mu mu wonewaat ko cofeelam bi nga xamante ne am na abindu non moom kay dafa yàgg moom plateau buñ ko mënta invité et tout danaan con sec danaan donc te yaakaar naa ne mbokk la kon ñu ngi koy jaalee suñu yaay ji ni nga ko waxee rek suñu yaay ju baax boobu moom nga xamante ne doomam waaw doomam yeeg ay ñëpp ah la la la la la la la boole kooku di suñu yaay ndey soxna mbubb moom dafa bëgg ñëpp la njaboote képp kuy liggéey si télé bi euh, franchement dalee na njaboot man dafa ma wax wax bu ma touché parce que nit mun nga wax ne kii sama doom lay liggéeyee rek sama yoon hmm. nekku ci moom mais dafay taxawu ñoom buuba nduur ak njaga bu leen yónneeti doomu jàmbur bi ci àll bi ma dem ba këram mu ne ma bul demati émission horaire bi bañal ma ne ko yaa booy man maa ko bëgg kon foofu ngay xamee nit ki euh, bi mu am si ñi fiy liggéeyee ñëpp ñëpp saa su ne mu ngi ñaanal ñu ngi koy moom it dañ koy ñaanal ah, gudd fan wér ak wér di ko jaale nag famille Ndour bi yëpp di ko mm-hmm. jaale Youssou Ndour moom it am na wax bu am solo bu mu wax mu ne Thione Seck lépp lu ñu werante werante saa yu ma daje woon nag moom dafa ma naan fii laala def ci xol bi laa def te loolu dafa am solo kon nag ñun ñëpp benn lañu dañuy daal di dem nag seetaan woy boobu ñu koy may nag Aby Ndour xam naa ne moom it fu mu nekk mm, euh, xolam xolam mooy loolu waaye nag euh, xam naa ne ñoom macha allah ñu gëm yàlla lañu euh, toogal nga ñaanal ko rek kon ñu ngi koy béggee Aby Ndour di ko bëggee képp ko xam ne tamit woy bi da lay daal di neex gaan Aby Ndour ne woon naa la dinaa la woy da nga ne Sénégal may sa woykat yaakaar naa ne woy bi moom ah dërëm macha allah ah? woy na ko xam nga nga toog nag ah, boo xam ne dafay woy ba ñëpp bëgg ko ci àdduna bi dans le monde entier nga toog nga ne ko yow man yaay sama woykat ah, waaye coon tamit delloo na ko njukkal ndax wax dëgg yàlla maa la bëgg nee nañu ku la bëgg moo la sonal baatu maa la bëgg dafa foor ndax kala bañ te defoo ko dara <laughs> ndax fu la nit safoo am na koo fa soof fu la nit bëggee tey am na ku la fa bañ te defoo ko dara danga kaa neexul yàlla moo la bind bi comme boo ko bu seetee ñëpp tànn kat yëpp ne ko coon yow la moo tax it coon delloo na ko njukkal te ba pare ay mbokk lañ bi yëpp benn la dégg li ma wax moo tax ma ñu jaale ko yaayam ndax doomam la ñàkk maam day soxna yal na yàlla guddal fanam yàggal ko fi mu yàgguñ uus ndax doomam la ñàkk coon Sénégal yëpp la coon mm-hmm. monde entier ñu ngi koy jaale Sénégal gépp di ko jaale monde entier ku ñu li ko jaale tamit Yacine waaw Yacine salon Yacine coiffure Yacine Thionsek ah, ah, moom tamit mu nekk ko ah, xam ne ku bëgg bëgg bëgg Thionsek la di ko jaale tamit Moumi Ballago mhm. Mama Ballago ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale la famille Ballago mhm. euh, ak euh, waaw yaasin moom mooy coiffeuse bi léegi sax la may wax ni waa Bignona fans club Wally Seck ba fa ne tey lañ doon wàcce ay kaamil pour pour Thione euh, di wax ne yàlla na ko yàlla nangu amiin amiin foofu yàlla na yàlla nangu Wally yow Wally Bignona léegi la may message gis nga bi may lire message bi nee na mhm. waa Bignona ñu ngi koy wàcceel ay kaamil loolu rek moo lay won ni Thione Seck Thione Seck àdduna yëpp la Thione Seck monde bi yëpp la kun mën rek na nga ko ñaanal ba pare dafa am lenn lu ma gis nga Sénégal mun nañu jote entre ñun defante lu ne de waaye mm. naqar bu amee ñëpp koy bokk ñëpp koy bokk mais xoolal tamit ñi nga xamante ne dañu ñëw jaale si euh, mm. ñëpp ñëpp a bokk naqar bi mm. dal di dem parce que xam nañ ne ñun ñëpp a bokk mel ni góor gi Njaay ah, ñoom ñoom ñoom Sidi Diop ñoom ñëpp dem nañu voilà ku lim rek da ngay mais képp kuy artiste yëpp ñoom ñëpp waa ñi nga xamante ne gëj nañ leen a gis sax ñu génn ñoom ñëpp dem nañu jaale ko loolu mooy wane ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk da baay ku nekk nag sa wërsëg rek ngay daal di lekk ci aar bi mm-hmm. waaye yéenalante jàmm defalante jàmm yaakaar naa ne loolu lu am solo la parce que tey buñ ah? yow de ñiy digle sangaay mm. ah bërki démb def nga geste bu macha allah <laughs> barki Seydina Muhammad man du ma waxal kenn lu mu deful ndax uh, am naa fulla am naa fayda ba nit ñi di liggéey damaa liggéey damaa teel a jaay mm-hmm. yor sama xaalis dëgg la du ni kenn yàllaa ngi ni tewoonu ma ko lii ngay digle dangaa sangu ba set doo koo digle. léegi tegal nga geste bu nice. waaw tegal foofu léegi sa ba léegi tegal foofu sa baaraam waxal ma kooku allo ku nekk. aloo euh, ki nekk si ligne bi. allo salaamaaleykum. waaleykum def soxna si. baal si. noo tudd ak foo ñuy woowee. Ah? noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw. ah. ma ne noo tudd ak foo ñuy woowee. Abi laa tudd. aji ñu ngi lay dalal ci seetu bi. Ah? aji. ça aji ça très bien ñu ngi wax ci ki nga xamante ni mooy Papa Thione mu fi dëddu ñu ngi ci jàmm bu wér a wér aji yan kàddu nga ñuy sànni ci ki nga xamante ni moonu dëddu di suñu papa di suñu fans di suñu lépp Thione Seck ku baax la woon mhm. aji mhm. allo waay ñu ngi lay déglu aji <coughs> waaw aji aji aji dem na mhm. aji yéeneem yegg na ndax noonu rek lañ ko bëggee jullit nee nañ bu dëddoo seede yi rek ñoo koy kii mm-hmm. ndax fi ne nii tubaarkàlla macha allah seede yi rafet na te am nañ ci njort bu rafet que ni tubaarkàlla macha allah def lu baax daal am solo. def lu baax daal am na solo lool lool lool ku ci mel ni Koutia ñu ngi ko koy jaal suñu xarit boobu nga xam ni sama patron bopp la. dëgg la de yow sa patron sa patron la waaye xam bi daal moom moom nu mu koy defee daal. ah nu mu koy defee ëpp na ëpp na fu muy dem rek ruq bi muy dugg. tey tey Sabador lim maye gis nga ko. may gis na man foofu yëpp du may lus beeg ah. Sabador bi waaye moom fu muy dugg ruq bi muy dugg <laughs> <laughs> dafa neex rek Kouthia kon xam naa ne moom yëf yi sori na jàmm moom it la euh, di fàttali maa ngi koy bégee bu baax baax di fàttali euh, askan wi rek di fàttali sama bopp tamit que feebar bi jóge fi dañ ci bàyyi ah. xel bu baax a baax a baax a dañ mm-hmm. ci bàyyi xel ñu respecté mesures barrières yi daal di takk suñuy masque di euh, désinfecté suñu suñu suñu loxo yi gis ngeen mm-hmm. comme li ñu wax ci Papa Thion rek yàlla moo ko tudd nag yàlla moom moo ko tuddee noonu mais daal nañu bàyyi xel que feebar bi am na fi ñu gën koo moytu ñu gën koo moytu daal ñu gëm ne am na fi nekkul ay loo xam ne dañ koy wax wax noonu wala jóge na fi wala mënul dal ku nekk mm. ñëpp la mën a dal mm. te bu la dalee dafay daal di gaaw donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu tamit lu am solo la ñaan yàlla mi fi ni mbas mi mu seppil nu ko ñu dëgg doy na sëkk buur yàlla mi ñuy dégg nañu ñaan ñun ñëpp ñaan mu ngi waaye nañu dem seetaan uh, suñu yaay jaaga moom it woy bu am solo bi nga xamante ne oh. woy na ko te yaakaar naa ne jéeg bu nekk ci buumu sëy bu ne da ngay ñaan yàlla ngërëmal sa borom kër te nee nañu ku ku la ku sa gërëm uh, sa jëkkër gërëm la ah, dërëm ajjana leer na ah macha allah moom it ñu ngi koy jaale xam naa dana metti torop nag dana metti dana metti waaye nag moom ku gëm yàlla la ah. ku gëm yàlla koo xam ne dafay dem ci morgo yi di sang néew yi ah kooku kooku moom macha allah kon nañ dem seetaan jaaga rek ñu daal di dellu siwaat am na njëkk njëriñ kon eh, jërëjëf ñu ngi koy jaale suñu yaay eh, kooku di jaaga jaaga ñu ngi koy jaale metti na torop nag mm-hmm. waaye moom ku gëm yàlla la mm-hmm. te ku xool tamit eh, waali ni mu taxawee mm-hmm. ah franchement macha allah macha allah yàlla may na ko xool muñ moom sax moo doon dalal nit ñi naan leen may leen ñu nit ñi bëri ba mënuñu julee sax papam muy muy ñaan nit ñi puus leen ci ginnaaw ba pare tamit na nit ñi bàyyi xel ah. <clears throat> dama koy njëkkee sama bopp ah. nañu bàyyi di sinap xam nga yooyu tamit ne nit ki nekk ci naqar nekk ci dëj ñuy mm. sinab dëj bi di mm, sinab julli di filmer lépp loolu tamit franchement war nañ ci war nañ ci yeddaat suñu bopp bu mm, baax a baax a ba parce que tamit aduna lu bëri loo xam ne ni loolu sutura ku nekk ci naqar xam nga nga nekk ci naqar taloo sinab taloo sinab ah, da ngay xool nit lépp looy def ci àdduna rek nattee ko sa bopp bu fekkoon yow sa waajur moo génn àdduna nit ñi ñëw di sinab est-ce que est-ce que dina la neex xam nga nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi xel daal téléphone ngi ah. toj dëkk bi téléphone ci boppam mhm. ki ñu ko indil moonu indil coono ndax euh, bu njëkk lu bari dafa amoon sutura mm. léegi booy añ yaa ngi validé añ ba booy reer yaa ngi validé dëj ba yaa ngay validé loolu yëpp rek euh, téléphone la téléphone daal euh, jumtuwaay bu am solo la waaye jumtuwaay bu bari problème la tamit ah man de <laughs> man damaa seetaan TikTok am lu ma gis TikTok moom kay nag loo ci gis ba léegi ni affaire bi daal mu ngi mu ngi man damay naan est-ce que du ma tëdd ba xaaj guddi sax <laughs> géntu ko gis ko xam nga des fois dina am image yoo voilà da lay da lay da a da lay choqué da tiital mm-hmm. mais ba léegi nii daal loolu ba li tey jii nii maa ngi koy maa ngi koy xalaat moo tax daal li ñuy mm-hmm. naan gis nga maa ngi soog a comprendre bi ma xoolee affaire bi nag laa soog a mm-hmm. comprendre lan moo tax ñu naan nit ku nekk war nga bàyyi bës sa bésu bàmmeel. wallaay wallaay doy na waa parce que dama ko seetaan. may ñuy wone ni ñu koy defee ak lépp ah. yal nañu yàlla xel delluwaat si yàlla bu baax a ah baax. ah oui ah <coughs> waali yal na ko yàlla dooleel. Mhm. fi ko bàyyam féete woon yàlla féete ko fa. Mhm. lii yen bi diis na mais diisul ndax yàlla yaaya bàyyam won na ko yoon wi. Mhm. na tegu ci yoon wi ko bàyyam bàyyi woon. lu dooleekuwul bu mu wàññeeku. dëgg la loolu rek lañ koy ñaanal yàlla yàlla oyofal yoon bi may ko xolu muñ. Mhm. parce que tamit xolu muñ bi dina ci baax lool. Mhm. xol muñ bi. dina ko baax parce que loolu rek nga ko mën a wax yàlla na la yàlla may xolu ak euh, Pape Seve mhm. Pape Ndour bu Pikine nee na mu ngi jaale Wally Seck xaritam bu baax a baax mhm. képp ku nekk centre commercial bu Pikine rek ñu ngi jaale Wally Seck ndax Wally am na lu fa bàyyi tubaarkàlla ñoom ñëpp rek nee na ñu ngi waa ànd seen oh. papa la dem ñoom tamit ñu ngi leen di ñoom ñëpp ñëpp ñëpp am métti daal ñëpp am. Oumou euh, saw waaw Oumou Sow tamit kooku papa yi moom moom dafa ne kooku sax mooy euh, papa kooku yaayam moo tax ma bëgg ko parce que tante Kumba dafa ma bëggal boppam mhm. Mhm. yaayu Oumou Sow dafa ma mhm. bëgg fu ma fekk dana ma jox montre boo xamante ne tubarkalla comme ta Kumba Ndiaye maa ngi koy jaale di jaale Oumou Sow ak seen famille yëpp di wax ne Oumou ku bëgg coon la ndax ragal péete day xañe wërsëg dëgg la te moom wane na péete bu baax a baax man daal pour man euh, ku bëgg coon bëgg nga Youssou Ndour bëgg nga Baba Maal bëgg nga Omar Pène parce que Sénégal sotti ceeg def ci la ñoom ñëpp nga bëgg parce que ñoom ñëpp dañuy def pare li ci gën a neex mooy que euh, artistes yu mag yi boo xoolee ñoom ñëpp dañuy woyandoo daal di def ay juyoo yu neex ak xale xoolal coon moom ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Paulette seen woyu seen woyu zouk bi nga xamante ne woy nañ ko daal di koy génne mu nekk woy boo xam ne euh, woy bu neex la mm-hmm. kon nag àdduna demal maa ngi ñëw la dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe waaye yàlla taxawu fi njabootam bi mu fi bàyyi sàmm leen yiir leen mm-hmm. ndaxte yàlla moom du teg kenn lu mu àttanul ah, donc di ñaanal waali tamit yéen bi oyof te dina ko mun a yenu parce que xale bu am jom la mm, xale bu am fulla xale bu am am jom na mu ko waree <coughs> voilà mu ngi noonu ko suñuy wax rek booy ñaan yàlla nga ñaan yàlla ay taxaw mm-hmm. te xam nañ ne am na ay taxaw ndax tubaarkàlla lépp rafet na mm-hmm. lépp rafet na moom kay lépp rafet na oyofal yen bi amiin yàlla na ko bi wéral ko ba mu yeggale fi mu bëgg a yeggale fi baayam yemoon mu paase ko ba romb ko mm-hmm. ndax xale bu baax la bu am yar bu bëgg Sénégal gépp te Sénégal gépp ko bëgg di jaale fansam yëpp ndax démb moom ku xool rek xam ni mbooloo wuy si na ko mhm, mhm. Sénégal gépp te am na ñoo xam sax ñëwuñu mhm. mais tubaarkàlla daal yàlla da ngay gis ñu nekk ba Europe def ay vidéo dugal ko di ko jaale bëgg biñ ko bëgg euh, loolu daal loolu daal lu am solo moo tax def lu baax rek am solo wallaay moo am solo li ci des yëpp ay muy noonu yéenante lu baax li nga yéene sa bopp yéene ko sa morom mm-hmm. defalante baax waxlante du baax jëmalante aduna mm-hmm. jeex na ba pare ndaxte ku fi dee ku ne waaw jamono ah? loo daawul dégg ngay dégg mm-hmm. loo daawul gis ngay gis ah ñu ngi àqu zamaan comme ku ci nekk rek na delloo si xelam ci yàlla ñaan yàlla jéggal ñu jéggal ñu jéggal ñu ci mhm. yërmandeem ne bu ñu àttee ci suñu jëf dina day ah, nañu yàlla jéggal yàlla yërmandeem ah. yaatu na yërmandeem yaatu na lool kon nag eh, yal nañu yàlla yërëm rek ah, yal nañu yàlla yërëm comme niñ koy waxee saa su ne rek eh, di jaajëfal ñëpp rek tatamiya dañ ñuy may clip eh, ñu daal di ñëw rek tàggatoo xam naa ndaxte li des ci dañuy dem seetaan publicité waa kay dañuy dem seetaan publicité suñuy partenaire kooku di bijouterie la solution ñu dal di dellu si waat xam naa daal di tàggoo sollicité. bijouterie la solution Sacré-Cœur indil na leen arrivage bu bees tàq tàq tàq tàq.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 arrivage bu bees la ah, mooy noonu raadu coup bi euh, ak euh, jaaro yi temps yi nag si yi la ñu génn ak benn chaîne bu lay àndal ci suuf. ci suuf waaw a suuf waaw. gis nga ko nii moo ngi tegu ci kaw bu dijji bi moo tegu ci kaw bu dijji bi normalement ci suuf sax la war a tegu xam naa ni ma ko takkee daal yàkkamti moo moo tax donc moo ngi nii nii lay def. waaw donc dem leen fa ñu ngi nekk foofu ca Sacré Cœur am na Pikine am na tamit nag euh, ville jarul ngeen di déplacé wu foo waay mënta nekk rek boo fa demee di nga leen fa fekk. kon nag dërëm dama lay bàyyi nga tàggatoo. wallaay wallaay la solution moo taaral jigéen ñi di ñu trouver toujours solution boo xam ne fu ñu génnee ñëpp naw ñu ñëpp respecté ñu di wax ne Bijouterie la solution ca kaw ca kanam képp koo xam ne bëgg nga lu baax rek jubalal foofu ndax moo ñu dooleel ba ñu mm. mën a toog fii ñoo jàpp ci combat ba jëli rafet ndax saa ñu sàjjee réew mi yëngu di wax ne ki kanam gi maa ngi ànd ak Tima Fossène fële ci unité 13 mm-hmm. képp koo xam ne bëgg nga make bu toog da ngay woote 77 253 treize quatre mooy Tima di xale boo xamante ne tubaarkàlla si amagul sax salon mais seen biir kër la nekk di góorgóorlu di ko ñaanal mu dem ba am euh, complexe Tima ànd ak laay san xale bu am jom bu nangoo liggéey yàlla na ko yàlla defal jàmm ànd ak ci tëni bi nag l'infatigable ki nga xamante ne mooy Pape Mousse borom la waalo mhm. la ci Pikine numéro téléphone bi nga xam ne ku bëgg ci tunique bu nice bi foofu ngay dem euh, numéro bi ngay woote 77 253 13 98 moom it nga daal di woote ki nga xamante ni mooy bu euh, Waalo fële ca kii euh, Pikine rond point Dominique bi mu daal di lay defal tunique bu am solo cheveux bi nag moom jëru sax ma koy présenté kooku dama ko wax ba réew mépp xam ko muy Pape Ndour Pape cheveux Pape bu Waali sekk moom it bërki démb am na lu ko naxari maa ngi ko koy jaal di ko jaal waa Pikine gépp di wax ni noonu laa àndoon ak Bessél ci mardi bi di tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo di dem mm-hmm. ba beneen mardi ak yeneen i feem tey nag moom xam ku ne xamoon ne hommage à Papa Thione la moo tax ñu lewet mais tubaarkàlla buñ doon reetaan sax am nañ lu ñu naqari mhm. ndax Papa Thione Papa Thione àdduna yépp la di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fii mu jóge di ko ñaanal suuf oyof ci kawam yàlla leeral bàmmeelam di wax ne ñim fi bàyyi yàlla tegal ko ci loxoom beseel amin amin allahuma amin jërëjëf dërëm égal à elle-même tout le temps moom i ñu ngi koy jaajëfal jaajëfal nag téléspectateurs yi ñu doon seetaan yépp delluwaat di jaalewaat rek euh, famille Papa Thione bi yépp ñu koy jaalewaat képp koo xam ne rek da nga bokk ak moom ak ku bokkul ak moom waaye àdduna wërngal këpp tey dañ doon def hommage à Thione Seck euh, yaakaar naa ne nag euh, <clears throat> kontaan ngeen ci waaye di wax rek ku julli ku ne rek na nga ko ñaanal parce que ñaan moom la gën a soxla mhm. euh, kon dañuy daal di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ngeen mun ñoo gis ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ah, muy ñoom tata Mia moom laay teg rek affaire bi ci loxo mu daal di koy séddale jaajëfal ñëpp ñëpp ñoom Abdourahmane fàttewuñu daal kenn kenn kenn ah. di wax Mado namm nañ la lu bare bare donc di leen jox rendez incha allah mardi bii di ñëw waaye balaa ñuy tàggatoo dañuy tàggatoo rek ak clip boobu nga xamante ne rek mooy euh, Papa John bi mu woy euh, yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf man leen di jox rendez-vous incha allah vendredi bu neexee suñu borom Kan mooy Seydina Muhammad na cëram Cheikh na Seex Seck moo nga naan ca innal muraada bu sañoon doon pënd dallu Seydina Muhammad kii kay xam na cëram maam li maamu laay bam aji boo daay laay xam na cëram Seydi Yàlla na cëram ay waleen ni ñaan ci barke Seydina Muhammad ak saaba sur la cloche pour avoir des notifications.